どうも。

mooy suñu ganu tey asalaamaaleykum Gambia képp koo xam ne a a ah, ah, ah, man Fatou Saba nii laa koy defal tey nag ma ñëw si kër bi nga xam ne fii laa bokk ma ne ko kër bi fii laa bokk ah kër bi nga xam ne yàgg na du tey démb la woon ma ne ko démb la woon tey soog a ñëw waaye balaa ñu ñu laata start rek ah di leen ne nag tey dañ ñëw seet ah, a fii si biir mu nekk koo xam xam ne ah, dafa bàyyi li nga xam ne mooy Angleterre waaye bi ñëw suñu dëkk bi di def lu rafet a rafet a rafet waaye ma bàyyi ko rek mu ah, nga xam ne ah, mooy askan laata ñu si loo ne naka sa jur

Wow. so macha allah nga ne depuis nga tukkee ba léegi uh, more than twenty years uh, musuloo ñëw Gambia uh, di julli korite di julli tabaski di si benn bu ko defee rek ma bëgg a xam tuuti si loolu. Thank um, Okay. Well, let's get it, get it up. Mashallah, mashallah, ame alolo, uh, rafet na. At this time around, namulang mo si Peter, namulang mo si Gambe. macha allah eh, bi nga ñëwee Gambia da nga tàggu anyone ne yaa ngi ñëw ko di ko di naka julli bi nu mu fa demee min fatta joɗa ko dem juma o yo demulo fen macha allah ah, amin loolu ah, rafet na tamit neex na dégg bu baax a baax a baax bu ko defee rek mbokk yi nga xam ne yéen a ngi yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV euh, tey nag euh, célébrité bu mag leen am si euh, biir dëkk bi Ami Jaaju mu nekk koo xam ne kuy def lu rafet la Ami dinaa bëgg nga yokk sa baat su ko defee sa fan si ñu mën laa dégg bu baax a baax a baax waaye Ami la sant. ku ma sant Oli ah, li nga ko ñawal ah, sanse bi rafet na ah, bu baax a baax a baax a baax a bu ko defee rek nga jëlal ma li nga xam ne mooy snippets mbokk yi ni ma koy waxee saa su ne tey soo leen gisee Fatou mu def lii xam ngeen ne eh, eh, si suba ba léegi li nga xam ne mooy suma garaam bu bu baax laa def suma mag nekk ba Amérique toog rek indil ma mbubi juli waaye ma toog ki nga xam ne mooy suma ñawkat di mu faat génn ak man fu nooy nii Euh, waxut ma sax ne daf maa ñëwal dama toog rek gis euh, li nga xam ne nag mooy muus bu fees tel mu indil ma mu bijjuli euh, jërëjëf bu baax a baax a baax moo paat yaa aret mbooj nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy suñu mag di mbojis moom nag bu ma ko waxee dama interview ami jaaju mu xam ne ami Angleterre la jógee buga àdduna lool mi ne ma kon nag foog nga def yi fi angale moom nag moom a indil li nga xam ne moo nekk yére bu rafet bi macha allah macha allah ah, bu ko defee rek amit ñu jekkale waxtaan ah, bu ko defee rek ma wax ma technicien yi ñu indil ma at advert ah, ñu dem ñëwaat am ayut technicien yi mu ngeen ma indil advert ñu dem ñëwaat du yàq dara si kër bi la bokk nañ dem xool ñi nga xam ne ñoo jàpp si bés télé eh, eh, li nga xam ne nag mooy Africa télé eh, Gambia saa su ne nii la moo demee wax na leen ko soo ñëwee toog ak ki nga xam ne mooy du yomba Ami uh, ah, kami magkawahera ka, bimoy sa posta nga ngatukin, nga nyoli nga kami nga mo'y gili. Naka sa gili. Mara juri da banyo rek. Akan den ah, lolu nena ah, ami bu ko defé rek ñu duga tuti ci kan moy ami gaal ñi nga xamné ñoy sétal.

mountain câmera vedeți la o cameră Gambian si jàppale bi ngeen jàppale Amie Jaaju mu wax ko waaye moom it bàyyiwut benn Gambian bu yàggul rek laa def suma graduation mu ñëw def fa loo xam ne kenn def ko macha allah macha allah macha allah amit ma bëggoon a xam rek ah, si ah, li nga xam ne mooy sa diggante ak soos léegi muy Fatoumata Bah Barrow may gis ami lu bari nga koo def ak moom lan mooy seen farfata babbaran president Adama Barrow kashe rahoton. President Barrow kumuutan dia di Barrow kaya karo toog ahan kay So, so nan duga tuti rek si first lady because a lot of people lady lañ ko xam a lot of people léegi lañ ko Uh, time ko mo ma fa soo nit la anyway macha allah loolu neex naa dégg ami euh, bu boobaa rek ma bugg a xam seen relationship lan la la euh, first lady bi dafa doon jamono tuuti But uh, anybody ñu ngi wane seen relationship boobu noonu ñu ngi gis ami jaali bu yàggul rek yaa ngi demoon si fi nga xam ne mooy you know dem def li nga xam ne moo nekk si sa liggéey yi ñu gis ne first euh, lady bi taxaw na si yooyu noonu ak yooyu yu euh, bari ma bëgg a xam ne loolu nu dee demee the next first lady bi si sa ay project loolu dafa am na am ñëw na si sama Thank you. depuis bu mu nekkee first lady si la nga renew relationship bi ndax since um, time boobu ak after bi nga tukkee nag naan am opportunity ak so after naka la kontaan dem amiin danga danga danga danga ne bu nekkee mooy fas bi rek xaaral ma xaaral ma dugal xaaral ma dugal fii yow ah naka la ko demee macha allah uh, amin ñuy gis uh, li nga xam ne moo nekk uh, state house bi samedam ñu am programme ñu gis fa décoration bi rafet te ku la xam-xam nga si fi déco naka la fa dee demee yow yaa dee yooyu noonu state function nu ko dee leen dee oyante yow first lady. noonu leen dee oyante dama bëgg a dégg boobu noonu yéen a ñu tuuti gis nga gars yaa ngi ree because you know yaa yaa ngi am loo xam ne it nañu bari amul ko si biir dëkk bi nañ dégg noo ko dee oye. Fabata ah. ah noo ko dee oye noo ko dee oye. No, but jamono boobu noonu leen dee oyante I know maybe mu ngi seetaan moom mu neeluwaat. dengan UAB santunan Presiden Barosin pun

nga mo nekk korité Gambia ak Angleterre lan mooy jaay seen différence si naka wax ñu wax ñu amee non dégg dégg dégg Gambia rek moo koy Gambia moo koy ñun fële amul dara lu ñuy liggéey lu dul liggéey rek bési bi sax dafay mel ni so ñëw fii after twenty years being part of spending time with the family see how people enjoy and do things concept xam nga dem si market experience purchasing preparation Alright. But dafa bëgg a dem ci da waaye balaa muy ci da ah, bu ko defee bongo maa Aki sama xarit la maire bi ku ko xam xam ma ak moom ku xam yaay Ami Dia du xam suma diggante ak moom mu nekk loo xam ne lu allah

ay siriw ah, ah, ah, te wóyoon ki nga xam ne mooy Abdoulaye eh, Abdoulaye nga xam ne mooy sa doom ne ko mooy sa taaw nga bëgg ko eh, lool lool lool lool lool ma ne ko nga bëgg bii ne ñëw maye ko kon nag wóy bii ki nga xam ne mooy Abdoulaye moo ko moom wóyoon Abdoulaye Pape Abdoulaye la ñuy yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV live and direct Amilay mi nga xam ne eh, bu baax la bu baax Amie Diagne ah, di toppatoo li nga xam ne nag mooy wax dëgg neex yàlla moo amee lépp lépp lépp Amilay di nga ñëw fii te dama la bàyyi kaay toog fii ñu waxtaan ak yow balaa maa dem dama la ko ñaan Amilay waaye teraanga àdduna bi dafa la defal bu baax rek foog nga wax ko Amilay kaay kaay kaay nga jàkkaarloo man Amilay kaay sii ay sii I'm Thank you.